asalaamaaleykum askan wi ñu jotal leen lim bi ñu am ci mbas mi ñuy wax Covid 19 fii ci Sénégal ci talaata tey bii fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de mai 2020 jot nañu yi résultat ci juróom-ñeenti téeméer ak fanweer test yi nga xam ne réalisé nañ ko juróom-ñaar fukk ak ñett dellusi nañ am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-benn fukk ak juróom-ñett. nekk nañu contact mooy yi nga xamante ne ñoom la suñu bërëb liggéeykaay yi di topp te di leen saytu juróom ñoom moom la ñuy wax cas communautaire nekk ci bërëb yi Grand Médine ci dakaar fii am na benn Dakar Feder am na benn Yoff fii tamit ci dakaar am na benn fële ca Touba am na ñaar juróom fukk ak juróom ñaari patient mooy ñi nga xamante ne tëdd nañu ci hôpital saytu nañ leen seen wér-gu-yaram amatul benn doomu jàngoro wër nañu juróom-ñeenti cas grave nag ñu ngi si suñu bërëb yi ñu wax sauvetage mooy service réanimation ñi nga xam ne ñoo ci des tëdd ca lalu hôpital yi ñu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii bi mbas mi dalee dugg Sénégal ba léegi ñu ngi toll si ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñaari cas yi nga xamante ne ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu junni ak téeméer ak fanweer ak ñett wër nañu. fanweer génn nañ ci àddina ci lalu hôpital yi tëdd tey jii ñu leen di faj ci ay doomu aadama ñu ngi tollu ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett Sénégal nag suñu dëkk mu ngi am nakar ak tiis di wax ne amaat na ñaari dooma yoo xam ne génn nañu àddina benn bi moom mu ngi toll ci juróom fukki at ak ñett mu ngi dëkkoon fee ca Grand Yoff génn àdduna démb di altine di fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 bi nga xamante ne 20 heures mooy 8 heures ci ngoon jot na fa fële ca centre santé Nabil Choucair ca côté Padoua keneen ki tamit moom mu ngi am juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn mu ngi dëkk fii ci dakaar làkku na bi nga xamante ne mooy bésu fukki fan ak juróom-benn ci mois de mai moom nag ci li ñu wax structure privée fala làkkoo fala génnee àddina ñoom ñëpp bi ñu leen seetee gis na ne dañu àndoon ak doomu jàngoro ji ñu wax Covid 19. ministère de la santé et l'action sociale mu ngi jaar seeni mbokk mu ngi jaar askan wi di ñaan ñoom ñaan ñëpp yal na leen yàlla xare àjjana di dooleet itam di fàttali di ñaax askan wi ne leen bu ñu tàggoog digtal yi nga xamante ne jox nañ leen ko ngir mbas mi mun a génn ci Sénégal ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaam. yow it ñu ngi lay gërëm di la sant Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé di ñaanal di ñaanal ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr et de l' euh, sociale di di wax rek xarit yi inna lillahi wa ina ilayhi rajiun ndax nag ñi nga xam ne dëddu nañu yal na yàlla yërëm leen euh, te seral tëraay ba ñi nga xam ne desandi nañ fi yal na yàlla musal leen te may wir ak gudd fan dellu soit ci plateau jeeg euh, ak këram xarit yi ñuy seetaan di sant tabaraka moom mi ñu may wér ak talak fekkee xëy dellu si waat jàkkaarloog yéen tey ci talaata ji jàkkaarloo bi nag dañuy ñaan sant rek yéen ñi nekk ci gox yi fasantikoo yi ci àdduna wërngal képp di seetaan seen télévision nationale ak seen émission jeeg ak këram ma yokkal leen ci jànq yeeg seen i pantere parce que ce sont de futurs jeeg quand bu ñu dellu si waatee ci plateau talaata ji ki ñu recevoir mooy ay da ma madame mbay moom nag daf ci ñëw comme ni ma ko waxee xam sa àq ak sa yelleef day tax sa toogaay day baax li nit ki naan nit dafa war am base su boobaa base ba day day dëgër nga xam yow la nga toogaale lan la mu ànd fekk sama turandoo nga xam ne moo yor boutique de droit ba ca Pikine di Fatou ne nis tuut danañ waxtaan ak ñoom waaye tamit di leen nuyu rek fu jeg ne rek na la wóor ne jeeg këram bàyyi na la xel ak la RTS 1 moo tax ñu ànd ak jeegu la poste yi nga xam ne ñoom chaque année tubaar fa kala comme à l'accoutumée lay wax kay danañ fi ñëw ci weeru koor gi ñuy ñëw fii ci waxtaan ak ñun su ko defee saafonteeg askan bi xam ne ñoom ñu ngi ci wetu askan bi àndandoo ak ñoom ndax dañu ne wat gaal ak yëgoo te gannaaw ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ñu yëkkateendoo di dóorandoo di xàccandoo daf ci baax kon sant nañu bu baax euh, waa poste yi ni suut dinañ ñëw waaye laata boobu dama naan gees rek seeti jekk tagal comment tu vas la plus belle ça va bien Francesca mm-hmm. may amaat mbégte mm-hmm. ak contentement di dellu si si plateau bi saay su waaw maa ngi lay nuyu di man aussi maa ngi vraiment di jaajëfal waa ministre de la santé. Mhm. ak ñu mu àndal. waaw sonn nañu trop personnel santé bi waaw. Mhm. maa ngi leen jaajëfal bu baax di mhm. leen nuyu bu baax. tey nag ma indi fi koo xam ne. di dalal Nafissatou Seck. waaw xam naa ne bëgg nga turandoo. <laughs> yaa ma ne Fatou kii ne sànq de wala Nafissatou Seck kon baax ba toujours Fatou rek yow ba plateau bi jeex. Nafissatou Seck Fatou Seck ba plateau bi jeex. <laughs> lii laa koy wax nee naa ko boo dul juriste tamit dëkk nga ak juriste. waaw jërëjëf ba léegi baax na. <laughs> Nafi Seck nek juriste bu mag. Uh-huh. nekk juriste consultante nekk yor également euh, boutique de droit. bu Pik bu Pikine nekk ci banlieue bi di def liggéey bu mujj ayib. ginnaaw ci tàng yu ñu weesu violence yi dafa bëre. trop lëmbee réew mi. te nga bàyyi ma wax ko. may naa la criminel sans arme yi ci dëkk bi may naa la defe ne buñ la nee jabar la punching ball nga ko bëgg a nga ko war a fa kii ba léegi d'accord naa ci kii dóor sax man moo ma gënal ka nga xam ne bu ubbee gémmiñam rek lam cey wax boo xere suuf si dugg ci te ñooñ la ñu fas yéene wax ñenn ci ñiñ ko war a wax ci góor ñi eggaleel chéri <laughs> ci ñiñ ko sañ a wax waaw ci ñiñ ko sañ a wax waaw ci ñiñ ko sañ a wax am na ñu dul def loolu déedéet damay damay damay fàtt damay brebis galeuse <laughs> may fàttali rek ne ko góor yi uh-huh. comme ni ma ko faral di waxee mm-hmm.

ñaareel ba mu yor boutique de droit bu Pikine mhm. di def liggéey bu mujj ayib comme ni mu ko waxee léegi rek mhm. ndax foofu du ma ne foofu la ëppee de mhm. waaye bari na fa lool waaw na na nga def

ko xamné am nga yitté ci walum yoon mhm. bo fa ñëwee dinañ la tegtal dinañ la conseiller dinañ la gunge mhm. dinañ la wax fi ngay teg sa tank ci mhm. lépp lo xamné dafa laal yoon té do ci fay dara donc lool moy li nga xamante ne moom mooy boutique de trois fi Dakar nak am nañ ci ñaar bu nekk pigine ak euh, Médina mais am nañ yeneen yo xamné tamit ñu ngi ci région yi ak ben numéro vert d'accord donc euh, tay nak comme ni ka ay da waxé ñu naka waxtané li nga xamante ne moom mooy euh, violence fay jot violence conjugale légui xam nga nu ñuy def dañ naan caw dem régi xool élément pour camper le débat dellu si waat acca waaw dama doon sëyeeg sama borom kër am ak moom problème am nañ juróom ñaari at na ñetti doom abaa ci kaw abandonné bi toppatoowu ma xamul ci lu may nekk te sama borom kër yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay léegi sama tante yar moom muy sama yaayu borom kër léegi ba ma yeree ba maire bi gaañoo ba léegi sama borom kër abandonné ma toppatoo ma parce que nee na moom waxi waajur moo taxoon mu takkoon ma faaleetu ma toppatoo ba ma génn fu ma dëkk mu fekk ma fa fu ma fekkee foofu lu nekk la may wax façon wax bu ñaaw bu ne dana ma ko def man maa ngi nii nag maa nekk sama njaboot dund ak di dugg daan ak sama njaboot maa yor seen dund maay fay sama location maay fay sama lépp lépp lu xale yi sama loos la gàddu maa leen di dundal di def lépp seen jàng tout maa koy def mais nag li ma gën a métti ci yëf yi moom daf ma mayul jàmm mayul ma jàmm bi maanaam fu ma dëkk daf ma fay fekk su ma fa fekkee du am du ma am lu neex sama diggante ak moom. façon toroxal bu ne dana ma ko toroxal façon saaga bu ne dana ma ko saaga lu ne dina ma ko wax léegi nag ci laa waxtaan ak benn xarit mu yabal ma ci bitik de droit mu ne dem ci boutique droit yi boo demee ci jigéen ñi maison de la femme boo fa demee nga laajte femme yi fa nekk soo fa demee ñoom dina la teg ci yoon waaw ci laa ñëw fii pour femme yi waxtaan seeg ñoom ñu jàppale ma nu mu def maag sama nga kon la ma doon wax ca commencement ba mi ngi noonu yow mayetoo nit ki jàmm ba pare jël sa gémmiñ def ko mu mel na euh, lu may bañ a tudd euh, jàpp sa jabar transformé ko punching ball ne naa la man dóor yi ba léegi am na ñoo xam ne dóor a leen gënal saaga wala xas Aïda ma bàyyi leen rek ngeen développé xam nga li ngay wax rek la am na jigéen ñun dañoo diiñ mm-hmm. comme li Ndeye Fatou Touré maître. waaw semaine dernière li mu wax nee na moom bu judduwaat amaatoon sax. day nekk jigéen ñaanaat yàlla nekkaat jigéen. waaw dañoo diiñ lool. Mhm. ba nga xam ne am na ci ñoo xam ne comme ni nga ko waxee. Mhm. dóor yee leen di gënal. Mhm. wax ju bon nga xam ne. moom la seen borom kër diikati di jëmale ci ñoom. violence yi nag boo ko déggee Francesca dafa yaatu. yaatu na yaatu boo xam ne te xam naa ni duñ ko mën a tënk lépp ci émission bi. waaye tey dañuy wax violence bi nga xam ne moo nekk ci biir néegu sëy yi mhm. ñu tënk ko foofu waaw moo taxoon ma bëgg laaj sama juriste bu mag bi mhm. pour mu leeralal ñu mhm. na fi violence mooy lan waaw violence moom boo ko déggee moom mooy métital maanaam ci gàttal ci métital mooy toroxal yi nga xamante ne ñu ngi koy yëkkati di ko teg ci kaw doomu aadama donc doomu aadama nag mën na nekk jigéen mën na nekk góor mën na nekk mag mën na nekk ndaw ndaxte dafa nekk loo xamante ne yoon da ko dàq ndaxte ku xam ak ak rek xam na ne doomu aadama kenn waru kaa toroxal te ku wax violence toroxal nga nit ki bëri na ay façon nag donc bu ñu waxee métital mën na nekk métital boo xam ne ci yaram lay nekk ay dóor ay gaañ rey sax gis nañ ko fi te dañ ciy faral di di ko gis dóor yi da dóor nit ba damm ko wala ba nga gaañ ko yeneen yi mooy fi ñu fi wax sànq di nga gis koo xamante ne du la dóor mais lu muy wax li mu lay wax dóor moo ko gën dóor moo ko gën a sedd mm-hmm. yeneen yoo xamante ne ay geste la mm-hmm. ay xaste mm-hmm. ay yeneen yoo xam ne boo nit ki da koy sax ubbi suuf si dugg ci comme ni nga ko waxee mhm. parce que dafa nekk loo xam ne métit la ndax mhm. bu ñu waxee violence rek métit moom mooy ñëw mhm. métital yooyu nag bëri la façon comme ni ko Aïda waxee nag bu ñu violence conjugale muy métital yi nga xam ne mu ngi am ci biir néegu sëy yi mu nekk nag loo xamante ne ci diggante ñaar way dencante la mu nekk diggante jëkkër ak jabar léeg-léeg sax mu dem ba gën law ci famille bi parce que toujours ci famille bi la mu nekk nag loo xam ne lu doy waar la parce que dañ ne doomu aadama dañ ko war a ormal dañ ko war a sàmm kenn toroxal donc ce que loo xamante ne boo c'est ci boutique de droit yi gis mm-hmm. amul jour une ci télé bi wala ci bi donc violence yooyu violence physique mooy métital yi nga xam ci la gis mm-hmm. violence morale psychologique muy wax yu peut-être nit ku ku yow du mm-hmm. mais yow mi koy dund كل جيس نيخ خمول نمول ماتي مي أمنا فمي ماتي فيو مناس نونو مو أم تبي لني وح فيولانس إقonomic لورنا كم نيكو إلما بيوانة دفنك أي أباندون مانام عند إندي سو صخنة تبي كدي عوار كدندر عوار كتوبتو وارف بومن بوار تي مامي دفوكو نختكت يون دفع أمل موه تد دينته جكر أجبا جكر مم موي كليف كدي دكليف تيف بوب دفع أمل مم يا ورا توبتو

xale les pension alimentaire mhm. na lànk ne doo ko joxe loolu ay forme de violence économique là. Mhm. waaw donc euh, loolu leer na na fi jërëjëf sa kenn li nga expliqué fi yaakaar naa suñu mhm. xarit yeeg mbokk ñu seetaan gën nañ ci am ay léral waye bu féké ne que yow mii ñaari waajantante yi dañ ko abandonné wala dund war ko dundal dundalu ko wala mu dóor ko ba dam ko wala yenn sa ñu dem ba mu dee yoon lan lay top ki nga xamné moy auteur des faits yu ni mel ni mel waaw xam nga dafa ni violence yi bare xam nga lépp loo xam ne rek ñoñantal la yoon da ko dàq parce que wax nañ ko kuñ sànq doomu aadama dafa foor mhm. yoon da ko ormal mhm. ba tax na kenn waru xooxatal nit ku nekk da nga am dignité humaine mhm. ba tax na yoon dafa am ay charte yu ay ay daan yoo xam ne teg na ko fi tey jii bu ñu waxee et blessures volontaire. képp koo xam ne def nga ko parce que nekk na loo xam ne bu njëkk ba avant 1999 diggante ñaari way dencante yi dóorante yi daan na fa am mais dañ ko doon rek arrangé daa woon yegg ci yoon

élément de preuve fekk mhm. dem na mhm. mais nek na lo xam tamit yoon da koy dàq mhm. parce que nit sax boko saga wala nga menacer ko yoon mën na la ci tek ay daan parce que dañ koy téré donc loolu yep nek lo xamantene dañ koy dàq ba ci violence économique bi ci bir néegu sëy violence économique bob lan moko indi ñu suñu jamono parce que dañu sétlu merci Adelaï euh, elle fait du beau boulot suñu jamono bi image yu am solo violence économique dafa bare torop yenn say nga dem ci koñ ñu ne la kii de kii mooy jëkkëram waaye moom saay bu xëyee day wër ci kër yi di ñaan loo xam ne moom lay dundalee njabootam. jëkkëram daf ko fi doon dóor bi dañu nelawuñu. Mm-hmm. dañoo fanaane àtte suñu dëkkandoo bi nga xam ne jëkkër ji chaque jour day ñëw lan moo lan ko lan moo koy indi. Mm-hmm. violence économique yi. waaw xam nga violence moom bari na ay lu koy indi. Mm-hmm. violence économique ñàkk gi mu ngi fi ñàkk xëy bi. donc violence économique li koy indi tamit gis nañ ko mooy. Euh, peut violence de manière générale parce que comme ni ko da ngay gis ko xamantene la ñu ne la muñal ci la hum. donc euh, voilà donc mu société bi koy à un moment donné dañuy dem ba dañ hum. donc banalisation day tax ba dañuy normal la hum. donc non, alors que ce n'est pas normal day tax acte bi day reproduire day chaque fois day cycle del cycle de la violence day reproduire bu ñu ci cause yi ah,

mooy dépendance bi ndaxte gis nañ fi coow yu bari yoo xamante ne laajte dépense moo ko indi moom daal laajte dépense lay bañ am na ko wante bu ñu laajtee dépense rek histoire commencé ak yeneen yeneen yeneen am na ñoo xamante ne euh, dañuy dañuy màndi peut-être ñu ñu baal ma ci kàddu gi mais yooyu yëpp nekk na loo xamante ne booy xool cause yi lu koy indi bari na ci biir société bi bi ma la bëgg laaj mooy. Euh, boutique de droit bi nga féete. yan cas fa gën a remarqué ni moo moo ñëw ba parce que sànq bi nga toogee fi nga toog euh, téléphone baa yi cing cing cing rek. donc effectivement boutique de droit mom euh ñëpp lañ fay recevoir di wax rek né lepp lo xamné ne dafa laal yoon rek ku fa mhm. ñëw muy goor muy jigen dinañ kay yi nga xamné ci côté conjugal bi lan fa donc violence conjugale yi boo mhm. xoolee li ci ëpp mhm. violence économique bi muy ñëw dundalu ma abandonné na ma wala daf may dóor di ma métti donc violence économique ak violence physique bari na ci boutique de droit waaw donc loolu amoo jour bo xamantene ne ah yenn saa ci kaw ëmb lay doon waaw yenn saa yi ku jigen ki ñëw ëmb ba 10 bëtam tuur toj wala tànkam damm ci kaw ëmb bi ku la def lii mu ne sama jëkkër te balaa may dee nag ñoom faat naan tey ko seet ko ba xam <laughs> li ma la bëggoon laaj ñu nekk ci réew mu mel ni Sénégal mhm. ñu ne boo bëggee sa doom am barke mhm. même sa jëkkër bu la defee loolu mhm. yow daal ñoom nawuñu torop ngay jël sa jëkkër di ko yóbbu ci yoon yóbbu ci yoon loolu lan la ci yoon wax waaw xam nga ni ñi di xalaat noonu mhm. peut-être dañoo dañoo xamul rek ndaxte tey jii sax ku ñëw boutique de droit ba nga ne mhm. procédure bi nii la da nga war dem tribunal mhm. peut-être dina am nu ko gisee ndax dégg-dégg bi moo rëy te xamuñu ne dañ nekk dëkk boo xam ne yoonu fii dox amaana neexuñu sax mais yoon bu tënk bu tegoo ñu ñëpp moo ñu tënk dañ ci war dox yoon nag nekk loo xamante ne koo ci yoon da nga bon comme niñ koy jàppee su ma exemple mariage parce que dafa nekk lu sensible violence conjugale dafa nekk loo xam ne ci biir néegu sëy la pourtant tey jii ku ñëw nga bindal pour mu dem tribunal mhm. turu tribunal ku ko dégg rek mhm. day naan yóbbu na ma ci yoon di mhm. xalaat lu bon alors que yoon dafa am nu muy doxee nee tribunal moom mooy wax ci lépp lu jëm ci wàllu sëy donc les, bu dee dafa am nag ay métital ah boobu tamit am na juge boo xamante ne moom moo wax yoon nag dafa nekk rek pour teg tegaat nit ñi ci yoon ñëpp mën a nekk ci jàmm mm-hmm. ndax def naa ni kat képp koo xam ne da nga wàcc ci yoon dañ la wax a tegaat ci yoon mm-hmm. ngir musiba mas mas bañ fay am mm-hmm. ndax da ngay gis koo xam ne ay door lay commencé ñu nëpp nëppal ko ba mu mujjee dee danaka bu nekkoon jaarale nañ ko fam mu war a jaar ci yoon donc duñ ca yegg mhm. donc loolu nekk lo xamné peut-être euh, il faut que ñuy ñu gëna a ñaax nit ñi pour wax leen né ah yoon kat dafa nekk lo xamné dafa bokk ci ñun parce que buñ newé ak euh, ak yelef euh ak ak yelef bobu noonu pour mu mën ko respecter il faut ñu am fu mu ko jaarale amna nak yenn yo xamné ne mën nañ ko waxtaanee négociation mu jeex mhm. mu jeex yem fa mais amna yo xamantene xamante ne négociation mënu ci dara mhm. donc bu boba yoon rek mom moy mën def liggéeyam ginnaw man légui man man man ak góor yi ñoo far ah. léeg-léeg ñu ñëw ñoom tamit ne ñoom ñi ngi subir ay violence de la mhm. part de leur femme mhm. léegi ñoom ñoom góor yi lu ñu leen di wax tey lan laay teg seen loxo tey parce que ñoom samay xarit lañu sama réponse ba eggaleel ba pare demal waaw xam nga violence moom mhm. euh, ñëpp mën nañ nekk auteur de violence parce que dafa nekk loo xamante ne société bi la xaalis sax mën na teg moroomam violence donc pour ne nu muy dalee jigéen ñi noonu lay dalee góor ñi te violence kenn rafetlu ko muy ci ku góor ka muy ci ku jigéen ka naam góor yi mën nañ ñëw ci boutique de droit bien que nag dañ nekk société boo xam ne ah dañuy ne góor kat na nga muñ góor yi amuñu habitude dem di wax lii lañ ma def lee lañ ma def mm-hmm. mais képp ku fi ñëw tamit indi benn problème ci wàllum violence dinañ xol niñ koy safaré bu dee jar nañu waxtaan ñu waxtané ko mais am violence yo xamné ne duñ ko waxtané mm-hmm. ndax moy violence yu métti do nit ba nga gañ ko wala yenn violence sexuelle yoy duñ ko waxtané mm-hmm. mais am yenn yo xamante ne mën nañ ko waxtané ndax ci boutique de droit yi dañuy def ay médiation mm-hmm. nit ki du ñëw rek ñu ne ko jógal dem tribunal bu boba dinañ la wo dinañ wo ka nga jotel waxtaan ak mom convoquer ko jéem trouver terrain d'entente donc lolu am na yu euh, am ci résultat yu bari ci problème yo xamné ne mën nañ ko rek régler mais yenn violence yu grave moom loolu duñ ko duñ ko négocier mais di wax rek Aïda ne que euh, képp koo xamante ne rek euh, jalgati nañ sa àq ak sa yelleef boo ñëwee dinañ la tegaat ci yoon pour nga mën a euh, am sa àq ak sa yelleef macha allah Aïda dama lay laaj ki nga xam ne dóor na soxnaam ba damm tànkam bët ba toj kooku par exemple bu ñu waxee wax bëtt mu di ko def di ko def buñ ko jàppee pennu ñaata lañ koy teg à peu près waaw xam nga peine yi moom yoon dafa am lu mu ko tëralee. Mhm. dafa am loo xam ne dañu am télé. parce que di nga nit ki nga indi ko télé goo xamante mhm. mhm. nag télé bi ëpp na jours. moo tax da ngay gis médical yi. coow yi ci am léeg-léeg. bu ëppee jours nag. bu boobaa daal bi day gën a tar. a ba cinq ans kaso mën nga ko tëj. ak ay anam yoo xamante ne. da fay waaw bu nekkee nag nit ki jëlee na ci dee wala jëlee ci yeneen gàllankoor yu métti parce que ni ay da waxe da ngay gis ko xamantene peut-être dafa nek ci diggante ëmb mhm. terewul dañ koy door ba avortement am ci oh. donc yooyu yëpp nekk na lo xamantene ne yoon dafa am fu ko tek lolu rek pour dissuader manam téré nit ki mu def ko mhm. Mhm. mais bon dañ nek société bo xamantene ne euh, léeg-léeg day diis si ñenn ñi on comprend aussi nga ne da ngay yobbu say pap dom ci ci yoon donc lolu mom moy ni nga xamantene ne tax na ba sanction yi même bu dee mu ngi am sax léeg-léeg application bi nañ ko wara défé du ko def parce que duñu dénoncer nëppal nëppal bi moy tax ba euh, du du avancer. avancer. sanction prévoir ci auteurs de violence mais prévoir victimes aussi parce que si auteur à côté parallèlement mhm. forcément victime prise en charge victime est-ce que ont développé na si jël nañ ci ay wala waaw donc xam nga lu ci bari comme ni ñu waxee rek euh, yu mel ni bu amee léeg-léeg sax dañuy xaw a fàtte victime yi mhm. mais euh, am na prise en charge boo xamante ne ñu ngi koy def yoon prévoir na ko mhm. association yu bari ñu ngi ciy yëngatu par mhm. exemple boo ñëwee ci euh, boutique de droit yi koo xamante ne métti dal na sa kaw déjà bu dee ay gaañu gaañu la bu dee yow pare nga bu nga ne da ngay porter plainte il faut déjà nga mën ko firndeel donc loolu il faut nga am lu ñuy wax certificat médical ñu ngi dugg ci prise en charge bi donc dafa laaj prise en charge médicale waaw mën na nekk ay photo mën na nekk ay photo Mhm. wala nga dem ci kër docteur mu gis mandarga gañu gañu métit métit li mhm. loolu preuve la comme quoi nek yow dund nga ben métit mhm. bu ko defee bo ñëwé dinañ la jappalé ci walum procédure bi donc pour le recours yi lan mën nga dem police mën nga dem gendarmerie mën nga dem tribunal mais il faut que nga am à l'appui ay preuves mën na nek ay photo wala mu nek certificat médical donc au delà de prise en charge médicale bobu tamit nit ki léeg-léeg da ci jëlé ay traumatisme ndax dangay gis koo xamante ne dinañ ko jàpp chaque jour di ko xas mhm. di ko wax lu bon ba moom day xeeb boppam day naan jaratuma dara mhm. ndax voilà am na ñoo xam ne sax goitre lañ ci jëlee mhm. donc conséquences yooyu yëpp day tax ba psychologiquement nit ki dafay soxla li ñuy wax suivi psychologique loolu tamit dañ koy proposer au niveau de boutique de droit yi donc boo ñëwee lu lu weesu prise en charge médicale yi parce que dañoo lëkkaloo ak ay docteurs yoo xamante ne cas yu mel noonu bu amee dinañ la yebal voilà dañ lay référencer si structures yooyu noonu ñu defar la certificat médical bi doo ci fay dara euh, ñu boole tamit ak ñi nga xamante ne ñooy psychologue yi ñuy liggéeyandool waa Cégide mhm. ak ñeneen ñu demee noonu mhm. topp la jàppale la defal la ba sa xel bi dellu si mu am tamit li nga xam ne mooy prise en charge nag judiciaire mooy li ma doon wax gunge mhm. bi parce que yoon dafa xaw a sew léeg-léeg nga gis ku ñëw bëgg ñu bindal ko plainte wala mu soxla avocat yu demee noonu bu boobaa ñu jàppale ko ci ba procédure am jeex te du ci fay dara bu soxla avocat te dooleem demeewul noonu naka ngeen di organiser woo ba amal ko avocat waaw donc euh, boutique de droit yi euh, ñu ci au passage euh, remercier ministère de la femme de la famille et du genre ñu am benn projet bi nga xamante ne moom mooy PASNEC ànd ak coopération italienne ñoo ñuy appuyer ak yeneen partenaires ONU Femmes UNFPA ñoo ñëpp di ñu ci benn fonds d'assistance ndax fonds d'assistance boobu mooy tax ba ku ñëw nga soxla certificat médical wala nga soxla avocat wala nga soxla huissier ñu mën leen ci jàppale te duñu fay dara donc loolu moom la ñuy def au niveau des boutiques Aïda on signale que waxtu wi jot na ñu bàyyi ngeen en attendant que ku ci mel Seyni bu poste am na cadeau bu muy indil suñu invité mais ñu bàyyi la ngeen tàggatoo rapidement waxtu wi jot na. macha allah li ma la bëggoon tontu sànq ma wax la ko. waaw léeg-léeg nga xam nga ne nga yaa fi toogal góor ñi violence faite aux hommes. mais ci jigéen ñi la ëppee. neel benn. <laughs> benn benn yaa leen fi toogal. Mhm. beneen bi ci des. Mhm. ci comme dañ ko da am na ci jigéen ñi comme am na ci góor ñi. Mhm. waaye ci ñiñ ko war a wax am na ñoo ci xam ne ña leen di wong ak di leen di boyal furna di leen ci riig lañ gën a respecté kay sukk di raam ak a bërëngu ma ma ma wax ko ta dund du ma ko wax nag di dee dama koy wax di dund. waa damay man saa su ne rek damay fexe dund équilibre boobu. <laughs> ndax damay bañ ñu ne ma damaa jeng waaw jeex na nekk jigéen rek nag dafa doy su ma jengee war naa jeng ba war naa naturel jeng ba war naa naturel su ma nekk jigéen doy na su ma jengee jeng war naa naturel waaye ñoom comme dama leen def partenaire waaw jeex na de bokk leen nii waaw ndax bañ ñu mere ñu seen xaritoo dafa yàgg suñu xaritoo dafa yàgg jeex na tàgg petit ba grand la jeex na di leen tàggu uh-huh. di vraiment remercier Nafi uh-huh. éclaircissement yi yëpp Mhm. lumière yi ñu fi indi yëpp defe naa leer na si suñu mbokk téléspectateurs yi mhm. ci nekk ci plateau bi yëpp vraiment ñu ngi lay jaajëfal mhm. di la sargal di kontaan ci ñëw bi nga ñëw fii merci beaucoup fi di tagu si téléspectateurs di leen wax nag boo korité woor wàcc bi ah. wor wacc lañ nek fi dal bi <laughs> euh, jërëjëf ayda ma ngi lay remercier tamit ci invitation bi mm-hmm. di remercier wa équipe bi yëpp euh, RTS d'accord di remercier tamit euh, association des femmes juristes suñu NA di leen saluer au passage vous pouvez nous rappeler le numéro vert waaw donc ñu ngi am ben numéro vert bi nga xamantene mom moy 800 805 805 800 805 805 waaw donc Ada yor na et puis elle est super efficace machin, de voilà donc euh, remercier je remercier ce partenaire comme nous mm-hmm. collaborateurs mm-hmm. de justice police gendarmerie. nous prise en charge je remercie remercie ministère de la femme mm-hmm. ONU Femmes nous avons amélioration l'accès des femmes à la justice pour éviter éviter violence donc euh, merci beaucoup. merci beaucoup à toi aussi. léegi ñu bàyyi rek euh, Seyni ñëwal rapidement jox invité bi kadam Seyni nga xam ne moo jiite association jigéen ñi liggéey poste waaw ñoom ñooy euh, suñu invité yi ci topp daal di jox Nafisatu cadeau boo xam ne bu euh, symbolique mi ngi noonu merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup ñu daal di daw nag dem régi xarit yi ñuy seetaan liñ doon waxtaanee rek ñu ngi jéggalu ñëpp nag ndax dañ doon waxtaan nag penc bi moom boo fi toogee lii metti rek lii mooy maanaam lay metti tak ñaxtu ci penc ba nga war a mën a waxtaanee tasaare ko léeg nag nga yor soxna defe ne dangaa yor sa bal thanks di door ci miir bi muy dellu si ak leneen ak leneen eh, xam naa ne dinañ ci dellu si waat bu soobee yàlla dañ naan coow dem régie am lu ñu seetaan dellu si ci plateau bi Les détails de l'arrivée du Covid-19 sur le sol sénégalais sont venus du ministère de la Santé. Le Français, porteur du virus, est marié, père de deux enfants et vit ici avec sa famille depuis plus de deux ans. J'en appelle à la responsabilité de chacun et de chacune. J'en appelle à l'esprit citoyen et patriotique de toutes et de tous. salaatu timis bu xëy mu ne melas corona xamul kes faxas chez vous loxo raxas sa garde la distance ak méfiance daan naa say mouchoir

Cevirandan Nenenu resteşevu, resteşevu Tenho respecte, travail. Ministère de la Santé, Ismaël ça travaille. Ministère de l'Intérieur, Ismaël ça travaille. Alcate, gendarme, militaire, waaw ñu dellu si waat ci plateau bi parce que balaa Aïda di dem moom it euh, Seyni da koy jox kàddoom Seyni

nañ ni coow dem régie le tant que ñuy recevoir nag madame bari moom it responsable commercial la ma nga la poste sëy ni mi ngi ci plateau bi ñu dem régie dellu si waat ndax madame bari tamit war nañoo fekk si plateau bi. Takkal waala gën a silmiise ci soole ci concu ba sa loxo sabado bu dee ama musuwaar door ko fi ko gaayi xaar Professeur, docteur, médecin, infirmier, bëgg jël na restez chez vous, restez chez vous. Te ñu respecté seen idée travail. Ministère de la Santé, gis nañ sa taxawaay. Ministère de l'Intérieur, gis nañ sa taxawaay. Alkaati, gendarme, militaire, donateur, artiste, sapeur-pompier, am ngeen jaarama. Ba beneen yoon, ma ñëw ci beneen yooneel ma ñëw ci Corona Morane ba beneen yoon ma ñëw ci Corona waaw vraiment am ba corona corona war na fi jóge te dem yoonam ndax li mu yóbbu bari na li mu yóbbu bari na yal na yàlla yërëm te seral taraay bi xarit yi ñu seetaan ñu dellu siwaat ci plateau bi comme ni ma leen ko waxee woon sànq léegi nag ku ci mel na Seyni Diop di présidente association des femmes de la poste mu ngi fi toog waaye tamit madame Bari nga xam ne elle est responsable commerciale à la poste ñoom ñaar ñu ngi fi toog Euh, comme ni niñ ko baaxoo di def séddale nañu seen teranga léegi nag dañoo war a waxtaan nag ci poste ak jigéen ña fa nekk organisation baak lépp ndax nee leen boo bëggee rigueur ak fulla ak fayda ak personnalité <laughs> bul sonn demal ci jigéen ñi soo fa demee rek daa ko fa fekk ñu nuyu leen di leen dalal jàmm ci plateau Jeeg ak Këram Seyni na nga def. maa ngi fi rek Fatou dalal jàmm ci plateau Jeeg ak Këram. alhamdulilah merci beaucoup. jërëjëf maa ngi nuyu. waa plateau bi waa RTS yëpp. Mhm. tàmbalee ko ci kilifa gi. waaw monsieur le maire. ba ci suuf. nuy mhm. nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant di la mhm. nuy di la remercier aussi tamit ci. lay fay invitation bi. macha allah yéen xamal ngeen ne poste. Euh, RTS mooy këram. kon nag sant nañ ko bu baax. sant nañ leen ci bu baax. maa ngi ànd ak sama rakk ju baax. merci passé mm-hmm. ni sax la may wax waaw madame Bari uh-huh. mu war a wax ci wàllu mm-hmm. commercial comme ni ko mm-hmm. waxee macha allah muy gërëm ñëpp merci beaucoup euh, alors madame Bari commercial moom buñ ko waxee rek bul sonn lay dugg ak lay génn ak lépp waaye da ngay ba pare ñu bàyyi la nga nuyoo waaw Francisca man lay fay. fay naa la chérie di nuyu waa RTS yëpp. Mm-hmm. Euh, di nuyu directeur bi ba si suuf. Mm-hmm. di nuyu téléspectateur yi ñuy seetaan. Mm-hmm. di nuyu waa poste yëpp yi ñuy seetaan ak suñu collègue yeex yëpp. waaw man leen di jaajëfal. ñu ngi lay fay yow tamit di leen dalal jàmm alors Seyni. waaw buñ ne association rek lépp a ca biir. social baak organisation bi ci liggéey beeg na lépp di fonctionner ak na muy marché ñu bëggoon ni nga duggaatal ñu ci tuuti. waaw jërëjëf euh, euh, balaa may tàmbali nag ci wax ci association bi. Mhm. damay nuyu sunu kilifa. waaw Abdoulaye Balde. Mhm. suñu directeur général. waaw maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. moom ak directeur ya fa nekk yëpp. Euh, te nekk ci poste bi. di nuy tamit directeuru filiale yi. ñaari filial yi ñu am parce que dafa am ñaari filiale poste finance ak EMS. maa ngi leen di nuyu bu baax ñoom tamit directeur généraux yooyu. di nuyu nag. képp kuy postier mhm. ndax tey poste moom mu nga fu ne ci Sénégal ah. foo dem fekk fa bureau de poste mhm. léegi nag maa ngi leen di nuyu postier yëpp mhm. a ah, beral nag nuyoo jigéen ñi waaw ndax euh, vraiment jigéenu poste yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di kontaan ci ñoom parce que dañu fonk amical bi ah, ba ma ca nekkee ba tey ñu may jàppale sincèrement nag avec sincérité. Mhm. ak lépp daal. ñu koy ciy def macha allah yal nañu yàlla lafal cat. amiin bi foo xalaat nag ci Sénégal. Mhm. poste am am am bureau de poste rek. Mhm. établissement poste rek kii nga fa. jigéen na nga fa rek. bokk na ci amical bi. macha allah kon donc maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp nag. di leen sargal di leen tar. li nga wax ci wàllu amical bi. amical bi ñu ngi toll ci neuf cent membres. neuf cent membres yooyu. waaw kenn ku ci nekk ñii ñu ngi ci guichet yi jànkonteeg liggéey bi client yi ak ci xaalis bi xam nga poste moom lu ñuy liggéey dafay laal xaalis. Mhm. ñii ñu ngi ci bureau yi. Mhm. nekk ci direction yi ñi ñu ngi ci arrière yi. Mhm. parce que dañu am ay service arrière maanaam. la régie waaw. produit bi. Euh, de de courrier bi. yooyu yëpp ñu ngi ci. vraiment ñu ngi leen di euh, ñoom ñëpp di nga ciy jàpp di jàpp ci liggéey bi. Mhm. ah bi Covid bi. ñëwee ñëwee. Mhm. ah ñu daal di nga xam ne dégg borom réew mi def ah, kiyam discours am. Mhm. wax ak nation bi peuple bi. suñu directeur général dafa daal di ci saasi moom daal di woote réunion. samp comité. national nag. teg ko samp ko pour ñu wàllu ci wàllu loolu mhm. comité boobu nag dañ ko tas mhm. mujj gi wàcc ko fépp fuy bureau de poste mhm. boo fa fekk nga fa comité d'hygiène maanaam gox yu fasantikoo yu wër Sénégal gox yu fasantikoo yu wër Sénégal doo dugg ci bureau de poste te joxuñu la nga raxasu waaw joxuñu la nga def gel waaw ñu nekk ci loolu ñun amical bi ñu ni tamit ah ñu waroon a def 8 mars ñu daal di ko def journée de sensibilisation macha allah daal di woo jigéen ñëpp ñu mhm. ñëw daje ci poste ba mhm. woo suñu médecin d'entreprise mhm. mu ñëw toog daal di ñu expliquer luy feebar bi boobu mu ngi doog a xew xamuñu ko mu xamal ñu li ci feebar bi ñu ngi koy na nañu koy defee yëpp mu xamal ñu ko ñu pare ci bés boobu muy le 6 mars ñu dal ñu nag ñu jël initiative amicale bi daal di wër génn nag dem dugg biir Sénégal dem Ndar jóge Saint-Louis dem Mbour mhm. jóge fa waxtaan ak jigéen ñi sensibiliser leen ci wàllu Covid bi macha allah ba nga xam ne kenn ko ci nekk xam la ñu dollu ci loolu ah suñu direction générale ñoom tamit ba tey ci seen xarañte mhm. lépp luy matériel lu jëm ci diggante gant mhm. diggante masque diggante gel yooyu yëpp daal ñu daal di ko fexe nu ko ñëpp jote ci Sénégal bu mën de fàgganti ko parce que ah, bu ñuy fay clients yi. Mhm. ah clients yi saa yu xëy parce que day am ay ñu fa ñëw. xamuloo ki ñëwut lu mu indaale. déedéet léegi nag bu fekkee nag nga jël say précaution. def mhm. ci loolu yi tamit mu dem ci brigade yi. Mhm. ñu mujj nag da sax def brigade wàññi personnel bi. waaw ñii dañuy ñëw tey suba ñeneen ñi ñëw. yëpp ci distanciation bi tamit ñu di ko respecté. ci nga xam ne ci loolu la ñu tekkee ci mbirum loolu bi. li ci gën a nag mooy raxasu bi saabu bi nga xam ne. moom lañ ci gën a utiliser. Mhm. di ko raxasoo. ak façon bi koy raxasoo comme ni ñu ko gisee ñu koy wan. Mhm. ñu ñu ñu nekk ci biir. Mhm. di ko appliquer de d'hygiène yaa ngi ci bureau yi. ñu ngi taxaw di ko surveiller di xool lu manqué ak lu taxaw lu am. vraiment ñu ngi ciy gërëm suñu directeur général bu baax. ak ñi mu àndal ñëpp. waa comité boobu tamit ñu ngi leen ci dal ndax secrétaire général SG bi moo ko moo ci nekk. ci bopp bi. vraiment ñu ngi leen ciy remercier di leen ci gërëm. d'accord ñu euh, xam naa seen DG daa def na suñu bos Racine Talla ndax nag bu ñu defee lu baax dee ko wax ñañ su ko defee nit ñi roy ci parce que sama classe gi nga xam ne jël nañ taxi ba ba taxi yëpp maan yëpp a ñu xam bi corona amee ba léegi kenn du ne jël si wuñ ma sama kër par brigade la ku ci nekk booy xëy si daan danañ la jël si boo nuppee ñu delloo la ba fa dëkk pour sécurité personnel bi ñu ko ciy sant di ko ci gërëm sans compter gel beeg nemmeeku beeg lépp xam ne daal dafa jiite jaboot te ba pare mu tëddee njaaxaanaay mm. tubaar fakàlla macha allah ñu koy sant di ko gërëm di sant nag kilifa yëpp tubaar la daal ne coowu nag seeti eh, madame Bari mm-hmm. ndax nag xam nga ku ne commercial mm-hmm. gis nañu jot naa ci mm-hmm. gis nañu poste poste cash yooyu yëpp gis nañ ko ñu bëggoon rek ci ci simili yow nga xam ne moo ñu dese nga tënkal ñu ko ci bu baax a baax ndax sama classe gi léeg-léeg ma yor carte bi duma xam sax pour lan laa ko war a defee mhm. mu gën a leer daal ci bopp yi ak jot naa ci ndax gis naa fii saako sobleeg pombiteer <laughs> nañ dem nga leeral ñu waaw Francisca mhm. euh, jot naa si comme li fa nga daanelee fa lay tàmbalee mooy jot naa si bi transport de marchandise la waaw euh, transport de marchandise soo ko déggee ak livraison mhm. poste loolu suñu kër de métier la d'accord régie bi day dem partout au Sénégal ñu ngi fépp Euh, transport de marchandise tey soo ko déggee. Mhm. mooy tey da ngay am sa marchandise. nga nekk sa kër. Mhm. Euh, nga oote poste. nga ne dama bëgg kat sama marchandise bi ñu yóbbul ma ko Matam. comme man mii waa Podor la dama bëgg daal yóbbu Podor. ñu ñëw fekk la ba sa kër. Mhm. jël. sa marchandise. yóbbul la ko. Mhm. si boobu mooy euh, personnalisé bi. mooy personnalisé léegi si dee classique bi la. Euh, transport de marchandise classique. Mhm. mooy jot naa si classique da ngay dem si bureau de poste bi. soo demee si bureau de poste bi nga ne ah am naa lii yéet la wala géej la wala paquet la boo xamante ne kat dama bëgg ñu yóbbul ma ko Tamba. waaw ñu jël ko mhm. yóbbul la ko euh, Tamba. d'accord dara du si kii. waaw eh, mucc si ay dara du si ay yàqu. am na la. ay option la daal. waaw waaw location la tey jii nga bëgg a mm-hmm. nga bëgg a dem toxu kii nga nekk entreprise wala nga nekk sa kër. Mm-hmm. nga bëgg a déménager dañuy ñëw indi mm-hmm. oto bi dañ la koy luye. waaw dugalal say matériel yëpp. Mm-hmm. xool xayma ko wax la temps la. oto bi day ànd ak équipe bu jàppale nit ci ay bagages kii day am manutentionnaire am ak lépp. ñu defaral la say bagage ba mu baax. defaral la say carton yóbbul la ba fa nga bëgg. muy yi jot naa si nag bàyyiwul soble. bàyyiwul pomme de terre. bàyyiwul livre bàyyiwul cahier bàyyiwul. tout matériel lépp loo xalaat si kii. Mhm. ba mu des matériel yoo xamante ne yoon daf ko tere. waaw yooyu lañuy ñuy kii mais lépp daal amul moom benn affaire voilà amuñu wax moom benn affaire mais lépp loo soxla muy diw tiir mooy ki tax euh, mbas bi ñëw nii mhm. euh, livraison bi dafa gën a yitteel population bi parce que déplacement bi léegi bëreetul mhm. léegi da ngay toog sa kër mhm. nga ne ah bëgg naa kat tailleur bi biir Dakar bi ndaxte am nañu ay euh, matériel yoo xam ay kii transport kii oto am nañu ay scooter yoo xamante ne mun nañu di déplacé wu si biir dëkk bi si Dakar. Mhm. muy région yi tamit. Mhm. tey ji nga am euh, yére boo xamante ne war nga ko yónnee. Mhm. da oote. ñu ñëw fekk la fa nga ne. yóbbul la ko fa nga bëgg. ndaxte jot naa si bi nee ne waxtu bii nii dafa ñëw à son heure. ndaxte mbas mi fu mu toll nii. déplacement yi comme liñ koy waxee dañ ko limité. d'accord li ngay dem bareetul mhm. léegi jot naa si bi mooy suñu oto yeex scooter yi ñooy dem di yóbbul nit yi. léegi euh, ci mbas mi ba léegi. Mhm. ndax xam nga nag euh, li ñuy wax lu def waxutul waxutali ay di njàmbat. Mhm. comme ni nga ko waxee ni ngeen di def ci mbas mi. ñu nekk biir dakaar ñëpp. mën a jot ci seen i bagages du ñu déplacé wu. beneen bi ma bëggoon mooy xam nga boo bëggee dem Louga laay wax rek. gannaaw ne yow nee nga Podor. mën naa seeti sama yaay di ko ñaanal wér ak gudd fan. ma njub biram jigéen su ma bëggoon yónnee léegi nii te mbas mi euh, levé ñu li nga xam ne dañu tere Mmh. transport dëkk ak dëkk mmh. naka ngeen di def yéen a ngi ci liggéey wala kii wagu leen ci waaw ñu ngi liggéey ba tey si loolu noonu maanaam ba bëgg a ndugg fi nduggum korité mu jëm Louga mu dem Louga dañ la koy yóbbul parce que ñun ñu ngi see régie bi ba tey mu ngi dem. mu ngi dem mu ngi dem si région yëpp. ak autorisation et tout ce qui va avec euh, lépp problème euh, tudd sanitaire beeg lépp. lépp jumtuwaay yëpp la ñuy jël ba mu mat. Mm-hmm. léegi tey jii soo bëggoon a. c'est bon à savoir. soo bëggoon a dugg. Mm-hmm. da ngay oto jot naa si naka Louga kat laa bëgg ñu yóbbul la. ñu enlever la say marchandise yóbbul la ko Louga ba fa nga bëgg. waaw te ak kii euh, si jumtuwaay kii xarale. dañ koy defee accessible na accessible na parce que mm-hmm. dañuy sóoraale population bi tamit xam na poste société nationale la waaw day def social tout le temps da ngeen di gis à la télé ñuy mm-hmm. def ay pañe ndogu mm-hmm. di yóbbu si daara yi di yóbbu si jàkk yi di yóbbu si jumaa yeex yooyu pour dimbale population bi la poste ñëwul pour euh, aspect pépinière ñëwul pour bénéfice dafa ñëw pour jàppale population pour àndax population bi moo tax nag jot naa si bii mm-hmm. ñu teg ko tamit pour dimbale askan bi mm-hmm. seetuñu si ay bénéfice mm-hmm. ki prix yi vraiment c'est accessible dafa accessible bu baax waaw baax na ñu bàyyi ko mu nooyi ñu dellu siwaat ci ci ci ci Seyni waaw waaw ba tey ci li mu wax noonu ci wàllu jot naa bi Euh, léegi léegi léegi bi ñuy ñëw. la ma sama benn cousine di woon ne ma damay couturière la. dama ñëw ba pare. Uh-huh. te ñëri yaa ngi nii aw ma nu may koy def est ce que di ngeen dem. ma na ko dawal léegi gaaw bureau de poste. Uh-huh. bu la gën a jege dem fa boo demee bu subaa bu xëyee. te li ci neex mooy dangay yónnee tey. suba bu xëyee koo ko jot. même ci région yi. ci région yi suba. waaw mu xëyee mu jot. Ah, neex na ba dee. Mm-hmm. boo ko joxoon léegi yow li nga yónnee sa yaay Louga. waaw bu subaa boo xëyee sa yaay na la yëf yaa ngi sama kaw. <laughs> mu ngoog kon mm-hmm. nga xam ne kon jot naa si bi daf ñu fi nekkal. te jot naa si bi. Mm-hmm. lii mu wax rek da dafay jàppale population bi. dafa ñëw ci ah, heure am. heure la ñëw. ba pare nag yomb lool nag. ba da léeg nga client ñëw sax nga wax ko li may fay mu ne ah lii rek. waaw. kon nit ñi waratuñu jaaxle fi mu ne. surtout nag li jëm ci waa ñu ngi waajal julli. bu mhm. ci kenn jaaxle. waaw poste ngi fi. Mhm. jot naa see ngi fi foo mhm. wax nag ci Sénégal ñu yóbbul parce que am na région yoo xam ne du ko am xëy na nga soxla ko Dakar woo ko ñu war koo jënd yóbbu ko ci ca ca dëkk ba mu gaaw ba dee. ci saa si mu daal di gaaw fii ba Casamance Ziguinchor partout. Kolda foo ci wax rek. bagage bi dina dem 14 régions yi wër ak 14 régions yi yëpp. ak département yëpp. dina dem ndax poste mu fu ne. waaw ba Kotiari. parce que nga Kotiari maa xam Kotiari ah, kon léegi boo yónnee woon léegi jot naa su mu dem Kotiari naa ko ma nga xam bi train Dakar ba ma ko daan daw jigéen ñi dañuy bay euh, di def seen i culture maraîchère so su su bu express jàllee ñu yéeg ak seen lujum jaay bu ñuy dëppaat Dakar def ndugg seen ndugg yee ya ñu soxla ñoom ceeb ak ñoom duri nag ñoom yëpp wàccaat maa xam Kotiari bu baax booy génn Tamba waaw bu baax a baax Tamba ga ma tudd sax nag da ngeen may may tuuti rek ma seeti fa magu jàmbur muy amital madame Mbow ñu ngi koy nuyu bu baax ca Tamba eh, ci yaatu bi ci ganale gi ci mën a teral gan soo waxee mu ne sama kër kër taalibe Cheikh la këram kër taalibe la tubaar fakal la di nuyu borom këram Demba Mbow ca marché bu bu Tamba di waa Tamba gépp ñoom Mboose ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom mam Jaara ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu eh, madame Bari mhm. loo ciy dolliwaat ci commercial bi. li ma doole si jot naa si bi te am na sécurité. waaw am na sécurité te am na garantie tey jii euh, marchandise bu si riir mhm. wala mu yàqu. Mhm. poste moo lay fay. da lay remboursé da lay remboursé. si délai yi néew. ok ma ne ko si délai yi néew. léegi jot naa si e daal def leen ko EMS a ngi fi ba tey waaw EMS filiale la day mel comme poste finance mhm. Mhm. soo bëggee yónnee ay courrier mhm. mun nga jaar EMS pour nga leeral ko rek faram-fàccee ko ndax <laughs> voilà EMS <laughs> euh, soo bëggee yónnee courrier bu gaaw mooy EMS kii la express mail service waaw soo bëggee yónnee ay courrier bu gaaw wala nga am na EMS tamit voyage nga bëgg a voyager comme ñii di dem Màkka ak yooyu mun nañu jaaree poste ndaxte yàgg nañ di yóbbu ay pèlerin ñu kontaan ba bëgg a dee duñu am bi kii ak prix yoo

Mm-hmm. rabat fu nekk ñu yóbbu la ci. maanaam cotisation bi par année la wala da ngay mën nga yóbbu par tuuti. boo fa amee compte di indi par tuuti di fa teg di sàcc sa di sàcc sa bopp. da ñu ne la mat na. waaw nga ne ah ñu ne la ay ca ci yoon baa ngi nii. waaw préparel bi. macha allah incha allah bu du woon mbas mi sax ren incha allah doon nañ ko démarrer pour umra. waaw ñu dekk ci. bu yéen jeexul waaxu si mën ca ginnaawam bul sonn. incha allah te fa nekk. macha allah ba tey tamit ci wàllu xarañu poste bi ci poste mhm. ah léegi boo daanelee rek fa ngay tàggatoo xam naa ndax waxtu bi jot na waaw caisse d'épargne waaw caisse d'épargne bi finance waaw compte yaa ngi fi tout tànk yi wala ñëpp ci am droit ñëpp tout ñëpp mën mm-hmm. ngay jël njaboot gi yëpp ubbil leen compte waaw tagal leen fa di leen fa verser épargne bu mm-hmm. amee ba am 18 ans 21 ans da nga jox ko yëfam ne ko ayca seetal foo war a jàngee ji waaw doxal fooy maa nga dox jàngi mu daal di ci nekk doxal jàngi sax moo gën nag doxal fooy mu daal di ci nekk dem mm-hmm. jàngi loolu daal li mooy li nga xam ne parce que moom bàyyiwul dara beneen bi nag moom dama koy bàyyi na fi mu wax la ko <laughs> jeex na tàkk non tàggal ba pare ma mujjee ci moom waaw waaw ah, man daal ñu ngi ñu ngi vraiment ñu ngi gërëm ñëpp ñu lay gërëm la sant di wax ne daal parce que daal ñu ngi ni ñun jigéen ñi nag macha mhm. allah. waaw ñu ngi jàpp liggéey xarañ ci liggéey bi. Mhm. ci loo leen teg ñu ngi ci. Mhm. pare àndandoo nekk benn. ndax amical bi. loo xalaat ci lu baax rek ñu ngi koy jëflante ci suñu biir. macha allah di defante ko ci sunu biir fii ba nag. foo xalaat ci lu ma la wax rek ne bureau de poste nga fa. Mhm. amical baa nga fa jigéen ñaa nga fa. Mhm. ñoo ngay voyager ci suñu biir di seetante di defante yu baax. Mhm. xamante ci loolu. loolu daal loolu nga xam ne loolu amical bi di nekk dunde ah ñu ciy gërëm nag suñu kilifa bu baax. waaw. ndaxte bu fekkoon ne moom mi ñu jiite muy Abdoulaye Balde dafa ñëw. daal di xaw a yemale amical bi am fu nu teg. waaw kon du dem. déedéet du mën yenn macha allah. filiale yi tamit. Mhm. li ma la ci wax poste finance ak EMS noonu la ñuy jàppale. Mhm. am ci nag koo xam ne muy mhm. mel ni kobaar waaw DMT. waaw kooku chaque huit mars. daanaka mooy solo mooy mooy solal jigéen ñi. macha allah dañuy jox ay kii yoo xam ne dañu ci jàppale bu baax a baax. a ah, am nañ tamit benn partenaire boo xam ne kooku foog mu gërëm ko. waaw muy waa NCA. NCA daal ñoom itamit vraiment dañuy jàppale dëgg nag ba mhm. amical bi sosoo ba tey nag mhm. delluñu benn yoon gannaaw ñu ngi conférence ñu nga suñu wet mhm. ñu kii ñu nga ci suñu wet macha allah waaw vraiment maa ngi ñu ngi remercier ñëpp merci di gërëm ñëpp nag merci beaucoup euh, madame Barry looy tàggatoo chéri loo ñu yóbbante waaw kii euh, Francisca di ma may tuuti rek ma tënk si carte post cash bi na say njëlbeen wax yaa ngi doon wax ne carte bi doo xam sax noo koy utiliser moom laa la wax kay voilà carte carte la carte la visa classique boobu moo koy permettre bépp gap si monde bi yëpp. da nga mën a utiliser sa carte banque bu bokkul ak poste sax bu bokkul ak a utiliser. gap bi sooy voyager Italie foo mënti dem monde bi. Mhm. carte bi mhm. soo crédité sa carte soo demee danga nga mën a retirer. ñii di dem Rome ñii di dem Mac ñii di dem fépp foo mënti voyager partout partout. Mhm. da ngay mën a utiliser carte bi. carte bi mun nga si fay euh, sa code woyofal. waaw fekkee compteur woyofal nga am. mun nga si fay sa facture courant. carte bi mun nga si transférer xaalis. carte à carte fekkee ne kii dafa am carte sëy ni am carte ma am yow nga am carte nga bëgg ko transférer zéro si fekkente ne sii amul carte nga bëgg ko envoyé ci xaalis mhm. trois cent francs n'importe quel montant trois cent mhm. francs mooy frais mhm. carte bi mun nga si def action en ligne mun nga toog fa nga mm. toog. Mm. gis benn uh, boutique uh, nga. buccee buccee wala dara nga daal di jënd. en ligne nga ñëw uh, kii la. Mm. carte bi daal mun naa wax ne mun nga si denc xaalis mun nga si def bépp transfert. macha allah macha allah ñu ngi lay sant di la gërëm madame Barry Seyni yow tamit euh, ñu ngi lay sant suñu directeur général mooy Abdoulaye Bibi Baldé moom ñu permettre tey ñuy ñëw di exposer suñuy produits mhm. ak suñu directeur marketing ak Bayar Fall mhm. ak collaborateur am yëpp chef de département am yëpp mhm. ak dukkure bi ñuy àndal suñu collègue di remercier tamit ta Seyni tout le moo ñuy conseillé <laughs> di remercier képp ku ñuy xàmmee muy postier muy ñëpp di leen remercier yéen tamit waa a a merci beaucoup à tout le monde xarit yi ñu seetaan ñu leen di sant di leen gërëm mu nekkoon waa poste ñu ñëwoon fii comme niñ ko baaxoo di def ndax gis ngeen sànq ni waxtaan nañu ci ak juriste ak ak yelleef yor sa jabar rek defe ne punching ball la lu mu wax nga araftiku ko yaa ngi saaga yaa ngi toroxal suuraaleel doom ya ndax jigéen bu xolam tàngee muy nàmpal <laughs> baas ba Euh, meew mu tàng bi muy nampal doom ji am na luñ ci wax kon léeg-léeg nag euh, nga ne borom kër ga booba fekk na yow waroon nañ laa dugal école balaa ngay jël soxna yu baree gi ci daal yu ñu war a waxtaan euh, dellu si waat ci plateau bi waxtaanoon ak waa jigéenu post yi ñuy sant di gërëm di nuyu ñëpp waaye nag sama doomu xol jooju nga xam ne te tata yi dégg avec politesse ak sourire sourire boo xam ne tubaar fakal la muy faafu ñoo madame Bao ci Parlophine ñu ngi koy remercier bu baax saa yu la solalee boo ko solaatee rek kontaan di nuyu nag yaayam ci élégance bi beeg am fulla jeeg fayda bi ak itamit mën gan ci te baax muy Adja Cuuc madame Niang ca Anne Marinas di ñaanal ñëpp kenn dalu jàmm ak salaam excellente journée à tout le monde et merci à toute l'équipe ba suba incha allahu rabbi